ñàkk jom si àdduna ba jëkk away man man ndeke ñaareel la faa ah. ñaareel kat lay dawal eh, xaaral ndeke lay dawal xel mi amul asalaamaaleykum ma chérie. salaam. tur bi ak sant bi. mu naan sant Ndiaye. jóge ba fan. Ajeri. di lan ci borom bés bi. di xarit di doomu day loo ñu mën a wax tey ci Fama. ah Fama baax la. alalam boolewu ko kenn borom baax la gaaw moom. loo tax moom dara kiiwu ko fi daal. loo koy conseillé ci léegu sëyam. ah de moom neexul na toog rek muñ ren xam nga mooy loolu. jàmm ku jaar ci sañsa bi tey baas bu jonga ma bi sama yaay de moo fi jaar Fatou Ndiaye maquillage bi maman ak kii bi merci beaucoup ma chérie ok merci man Anta Lo madame Diabo ba fan jóge ba montagne di ci borom bés bi di xarit di doomu ndey di ci bés bi a waaw Fama de man moom su ma la moom fii ba suba ma fi jóg ndax man ak moom ñoo màggandoo yarandoo fii mooy sama kër papa fii di seen kër ñu jàkkaarloo waaw ku baax la ku yaru kenn mos koo xame ci yéen wax dëgg fa yàlla jàmm ak salaam lañu xamante moom lañ doon ànd. ma chérie loo koy conseillé ci néegu sëy di ko conseillé rek nu ko sëy yëpp benn neexul yëpp waaye bu demee na muñ déggal ay gorom déggal jëkkëram waaw jël gorom def ko ne def ko ne yaayam ji mu bàyyi fii bu demee di ko woowee yaay def ko xarit def ko léppam jël jëkkëram teg ci wetam loolu daal laa koy conseillé jël ñam fa fekk ca waa kër ga sekk ñoom jàmm sekk ñoom salaam gàtt tànk bañ a gudd làmmiñ. yam ma chérie yow sa jaune blanc doxul jàmm de ku jaar sañ sa baax. waaw fii Amar Thiam moo fi jaar. merci beaucoup ma chérie. ok. sant bi Binta Diallo laa tudd. ma chérie jóge ba fan. maa ngi dëkk fii Algérie. ma chérie xoolal ma sama caméraman loo ñu mën a wax tey ci Fama. Fama li ma mën a wax ci woon fa bari ndax Fama dafa sama xarit sama rakk moom ñi nekk ndoo ci Algérie di foowandoo moom. bisam bii mérito na ko na dafa baax dafa yor bëgg na nit xam na mooy kan xam na nit ñooy kan respecté ci néegu seen. man ko bu demee rek topp ay ndigalal jëkkëram tere ay bàyyi ay tere ma chérie jaar ci rob bu baax bi maam Kër Ndiaye moo fi jaar merci beaucoup ma tur bi ak sant bi maman Sarr jógee ba fan sant ba noor di lan ci borom bés bi euh, sama rakk yaay la loo ñu mën a wax ci Fama loo ñu mën a wax ci Fama ah Fama nit ku baax la bëgg na mbokk aussi lu xew tamit daf may woo nit ku baax la vraiment olha o que ci néegu sëyam waaw dama o que rek su demee na muñ fonk jëkkëram di dox si ay waaw eu chérie yow xam nga ni sa verre blanc doxul jàmm ku jaar sañ sa bu baax bi ah, d'or merci ku jaar sañ sa bu baax bi Kumba merci beaucoup ma chérie ok merci I'm Yeah, papo

lan ci borom bés bi. xanaa Amida Fass xaritam doom ndayam. loo ñu mën a wax tey jii ki nga xamante ne si mooy Fama. ah Fama moom lu ma koy mën a wax mooy baax na yaru na am na yuttee ba ñuy xale ba tey ñoo foowandoo nekk ci koñ bi musta changé musta xulool kenn musta xeex ak kenn ku baax la moom. loo koy conseillé ci néegu sëy ah xanaa conseillé ko comme ni conseillé rek ndax wan ko neexul yëpp sëy yëpp a métti waaye mu muñ rek te xam taaru jigéen moom sëy la loolu laa koy conseillé. ma ah, chérie soo waroon doxul jàmm ku jaar sañ sa ba. Euh, waa kii sama tailleur fi jaar ba dara lañ koy wax. ma chérie merci beaucoup. merci de rien. salaamaaleykum ma chérie. maaleykum salaam. ak sant bi. Nafisatou Diop la. jóge ba fan. Euh, jóge ba Tëngéej. ne leen ci borom euh, laa ci borom bis bi yàlla def ñu benn baay moo topp si man moo waral ma jóge wax tey sa doom baay bi nga xam ne mooy Fama. waaw de moom daf bëgg ba ñépp xam ko daf maa bëgg ba Sénégal njaay yëpp xam ko euh, nekk na rek boo xamante ne ku ma déggal la balaa def dara daf may tàggu ba pare man tamit noonu ñuy déggante guddeeg bëccëg suba ngoon maa ngi moom looloo tax ma jóge Tëngéej ba fii mu nekk ku baax nag koo xamante ne. damay ñëw sa bu ma ñëwee Louga day bàyyi néegu yaayam sama néegu yaay lay tëdd guddeeg bëccëg suba ngoon daf maa bëgg rek moo tax ma ñëw. ma chérie loo koy conseillé ci néegu sëyam mu góorgóorlu rek bu góorgóorloo xool ci yaayam ak ci ay wujju yaayam ñu fi bu demee dina sëy ba dee. mais ma chérie sa robe doxul ku jaa sañ sa waa gis nga jàpp ci bis bi rek bëgg rek mu kontaan. merci beaucoup ma chérie bëgg rek mu kontaan.